leen sa maam Fatou benn la suka ko di jël borom fukki jabar ak ñaar juróom benn góor jël jël morom waaw waaw Massi Dieng sa maam Fatou benn la suka di jël yow mi yaay bokkum réew mi maam Diarra mu baax bi sëriñ ma tàgg yaa si jéeg ma jigéen ma jigéen Ndoumbe Diouf maa Ndiaye ma jigéen Ndoumbe. damel Tine Ndeye Souka bi Ngoné Dieye Amady Ngoné Sabel damel Massamba Tango damel Ngoné Sabel. yow mi da jug am jom am personnalité am maanaam. nga doon taal nuyu la woon bu yàgg nga baax lool. Viviane Ndour mu baax mu yow la ñuy jox kàddu gi ba si jéem a di mel ne Souka bi Ngoné Dieye ñu nekk Viviane Cheikh Saliou sang ba jama huwa dilal ko way mooy waaja yërmande jam ñaa ngi ni jërëjëf Cheikh Saliou sang ba jama huwa dilal ko way mooy waaja yërmande jam ñaa ngi Saliou jërëjëf Cheikh Saliou jërëjëf Cheikh Saliou sang ba jama huwa dilal ko way mooy waaja yërmande jam ñaa ngi ni jërëjëf

ñëwal naam ñëwal amiin juróom-ñeent fukki junni fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñett fukk ak juróom juróom benn juróom ñett juróom ñaar juróom ñett juróom ñett ñaar fukki junni dafa ñëw tabaarkalla si parce que bu dul sonn tabaarkalla macha allah xam nga lu mu fóon tey su ma jëlee indi ay bagage teg si dama lay sonal te Bijou bëggul mu sonal tabaarkalla ma salgan ni mais nag wareef si njëkke su ñëwul woon nga mun a tabaarkalla nga ne ko waaye ana njëkke yi ana goro yi moo tax tabaarkalla ma sha Allah ñu defee nii su ne bu ma doxoon sax mu doon sax bëggee mën a ko déet teraa nga bët lu mu tamit dabal te doo ñëwee nii nga toog nii mu ne ma su ma sañoon bu ma sonal sama bal moo tax ma ñaar fukki junni ñu Pawlish Mbaye ne moom mooy nii moom ci papaam bu baax mën na doore ne sax doom ne kon daanaka bu ñëwee fii ci doomam la ñëw ne di lool lool lool lool ne lay ñaan Pawlish sa sëy bii yàlla ci yàlla def barke mu am njaboot gu barke am njaboot gu barke ne yàlla bàyyi la ak soxna jaara sa soxna sa turandoo ne ba ñuy dellu si waat fii nag ñi ngénte taaw ne maam doom bi jigéen ñu tuddee ko bii si woon amin waay amin waay yàlla mën na ko doomi soxna bàyyi ci kenn du yow nee na moom li la indil ne incha allah eh, moom teraanga sa bur bi rek la indil en douce la koy def. bibi nana. ne ko bibi joli nana. ala y'a dɔn bibi joli ka nana. a ala yɛrɛ y'a dɔn. a bi ba wo. a ye dɔn bi a ye dɔn ka jɔnati bi ba nana. do diliyaani nana siri si jeey faati na suba bo yak xew ya siri si jeey faati na suba bo ne jeey liggéey tey aji bu su ma dindee rek sama loxo bi kii bi li may def day yàqu. léegi nag dama ne eh, kan may nangu teranga bi kan may nangu teranga bi kan may nangu. moom dañoo gis. dafa am yàq naa soo mu xees bi moom ko may parce que man jaarale moom man mooy moom sama jël gi maa koy nasal ah wuy lii wuy lii law la jàpp dafa nee wol ma ko. dama ne Mara. benn Mara nga déglu Mara. waaw Mara ma gën a Mara gën a gën a seen saal yi ñu ne leen defal. dimbali rek dara. borom njàpp na la xamal naa borom bi sama loxo gi. borom nag ana nga yaa ma dese ma ñibbi. ala bi bëjoo may ñibbi. taal bi seen saal. waa soxna Diarra. waa soxna Diarra. yaay Philippe Ndour. soxna Diarra. Sadio Mbacke soxna Faye Kaba yaay. soxna Diarra. soxna Diarra.

muka delloo ngay teraanga alxames bay defar lànk ñu ko waaw ni ma ko jëlee ñu defalaat bi ca gën a neex da ngaa yëkkati delloo ñu ko jëlaat deux cent mille xanaa kooku boole xam nga moom teguñu ne ñu mu sa teg ne ci ñàkk naa soo mu xes moom ko parce que man yaa man mooy moom sama jël gi maa koy nasal law la jàpp dafa ne di sa a Fatick benn rab sukaab bu di jël borom fukki jabar ak ñaar juróom benn góor jël jël morom waaw waaw Massi Cissé maam Fatick benn rab sukaab di jël yow mi yaay bokkub réew maam jaara mu baax bi fëri ma tàgg yaa si ma jigéen ndumbe ma jigéen ndumbe ma njaay ma jigéen ndumbe damel tin let suka bi ngoone jeey amri ngoone sabel damel ma samba tànko damel ngoone sabel yow mi dangaa judd am jom am personnalité am maanaam nga doon taal bi sëñ Sall sëñ Mamoun Abibou nuyu la woon bu yàgg nga baax lool Viviane Ndour mu baax mu yow la ñuy jox kàddu bi parce que des fois damel let suka bi ngoone jeey kenn du yow soo ñu dem Viviane wax jërëjëf Cheikh Saliou sang ba jamaax waa di lan ko way mooy waa jaa yërmande jaam ñaa ngi nii saaliw sanga ba jama waa dana koy mooy waaja ma na jàpp ñooy saaliw jërëjëf mooy waaja ma waaw maa ngi nuyu ñëpp. nee na mi ngi nuyu ñëpp. nee mi ngi nuyu ñëpp fekk ñëpp. bisu ngoone. di nuyu ñëpp Djiby Dramé. nee bu limee rek du matal. juróom-ñeent fukki junni fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom juróom-benn juróom-ñett juróom-ñaar juróom-ñett juróom-ñeent ñaar fukki junni dafa ñëw tabarkalla si. parce que bëggul sonn tabaarikalla macha allah xam nga am foon tey su ma jëlee délégation indi ay bagage teg si dama lay sonal te Bijou bëggul mu sonal tabaarikalla macha allah gan mais nag wareef si njëkke su ñëwul woon nga mun a tabaarikalla nga ne ko waay ana njëkke yi ana goro yi moo tax tabaarikalla macha allah ñu defee nii su ma fañoon mu ne sax mu doxoon sax a ko dee teraanga ba lu mu tamay dama doo ñëwee nii na toog nii mu ne ma su ma sañoon bu ma sonal sama baal ma tax damay ñaar fukki junni